waaw salaamaaleykum wa rahmatullah barakallahu fiik wa jazakumullah xayran sayda fatima ñi ngi ñaan borom subhana taala yal na la fay defale lépp sa misan xasanaat waaye fayal ñu bépp sayda bu nekk ci groupe bi kon mbokk yi mi ngi noonu audio yi nga xam ne sayda fatima la moom la ñu wàcceel mu jëm ci wàccaay tabaski gi ci biir kër yi kon ñu déglu ko baax teewlu ko kécc ku ku ci am looy euh, contribuer tamit nga dugg tijji nañ groupe bi macha allah mu nekk ojo yu am solo ku nekk xam nga ne Sénégal jamono ji ñu tollu thème bi am na jigéen ñoo xam ne tey seeni fit mi ngi seen diggu bopp seeni bët mi ngi fees dell ak rangooñ ak seeni xol ngir ne am na seeni moroomu jigéen yoo xam ne war nañ leen a fekk si di seeni wujj wala seeni wujj percergo di leen jaay mën-mën ak am am ci biir kër gi nga xam ne ñoom ñu ngi fay sëy sonn fa lool ci togg maag yekk maag fóot baag paase baag kàddu yu naqar yi ñuy dégg ak lépp am koo xam ne moom bu ñëwee moom la ñuy teg ci kaw di ko aj ajal waaye teewul di ko tagg ak gërëm moom mi nga xamante ne bi at ba at la fay ñëw te benn yoon la fay ñëw fukki fan ak juróom la fay def wala ñaar fukki fan wala sax benn fan la fay def dem waaye kooku la ñuy jël di ko tagg di ko yëkkati ngir ne koom moom fay indi ak yebbi ba mu fay def ak tisi yam fay joxe xaalis ba mu fay may ak ndéwénal la mu fay joxe di detteel ak toroxal ak a ki nga xam ne moom moo nekk chaque jour ay at di dund ci kër googu ñaar fukki at la fukki at ak juróom la fanweeri at nekk fa di dund ci coonoo mettit moom ñu jël ko teg ko ne tege waaye nag ah, li ci ëpp ci li may wax rek man dama koy delloo ci góor ñi nga xam ne dama koy delloo ci góor ñi nga xamante ne bii tey man dama naan fulla ak fayda dafa xëy ñoom ñu gont que bu fekkee da nga nekk kilifa ci kër yàlla may la nga boole ñaari jigéen wala ngeen nekk ay góor ci kër seeni soxna ku ci nekk yor sa soxna ñuy nekk ay peccergo ci biir kër ña war a ñëw di julli si yow borom kër gi ci boppam yow yaay dànkaafu sa soxna yow yaa koy teg ci yoon xamal ne ko dangay dem julli gi dañuy dem pour feetu defuñu pour defante ji defuñu pour sànnantey teraak defuñu fa pour soloo ko summeeku teel a dànkaafu soxna si nga xam ne moom ngay moom mooy fekk jee ki ñuy fekk si it nga dànkaafu ko ci ne ko kii ñëw ñëw fu pour defante ñëw fu pour soleeku summeeku di ngeen di ñëw pour bokk toog bokk feetu bokk togg gi yekk gi xolli beeg euh, waxtaan weeg kaf geeg ree ji ba demam jot mu dem ñaar ñu nekk ci ñoom kenn ku nekk ci ñoom yow borom kër gi nga dànkaafu leen parce que yow yàlla yàlla teg kilifteef gi ci sa loxo yow yaa takk ñaar ñëpp ku ci nekk nga jox ko ñeent ak saransam ku ci nekk nga takk ko ci farata ak sunna indi ko ci biir kër gi kon Seyda yaakaar naa ne responsabilité bi dafay dellu ci ñi nga xam ne moom mooy borom kër yi tey kër yu bëri yàqu na góor ñee ko tas ci seen manque fulla ak fayda ak caractère bi ñu war a am ci régler ay soxna ci ku nekk sox place nga teg ko fa mais bu fekkee ki war a ñëw la seet bu bees la rek takk nañ ko bees moom bu nee tooy na ñu ne xepp bu ne wow na ñu ne kongu ba nga xamante ne bii moom lépp lu mu def rek dañ naan gongo xool ñu lu baax la wala lu bon na ndax day doog a door kam fay fekk si moom fe bëgg a nekk koo xam ne moom it da koy jooy guddi jooy ko bëccëg ba nga xam ne tey jéeg ji am na jigéen ñoo xam ne tey guddi yi ñuy waxee ni tembe bu ñu tëddee du ñu nelaw ndax ñu ngi xalaat gannaaw suba gii di julli wala euh, julli gi ñëw na tey ka leen war a fekk si nan la war a nekkee ñoom seeni fit dem nañ lan la war a indi nan la war a nekkee nan la war a demee ndax lan ndax borom kër ga moo mel noonu dafa am góor ñoo xamante ne bii dañoo bindoo ne tama ñu bi ñu tëggee leen ñaari boor bu fekkee yow da ngaa yor ay soxna te mënoo leen a yamale nga yem ci benn bu fekkee da yor ay soxna te am koo ci ragal am koo ñeme nga yem ci benn moo tax borom bi subhaanahu ci maadu teem ga ci yërmandeem ga ci kàttanam ga ci xereñam ga lan lay wax ah, bu ngeen demee bu mënu leen a ah, yem leen a maandu ba mu tuddee masna wa sulasa wa rubaa lu mu ci teg wa in xiftum an laa taadilu fa waahida bu ngeen demee ba ragal ne munu leen a maalu yem leen ci benn soxna tey lii moom moo indi kër yu bari tey e, seeni am na jigéen ñoo xam ne tey instant yi ñu ngi ci problème lii moo indi tamit kër yu bari jamonoy tabax si korité kër yu bari day tàng am na ci koo xamante ne bi ndeysaan ci jour tabax si la ñaari jabaram xeex xeex-xeex bu metti ci tabak tabaski ndax ñooñu seen tabaski am na njariñ déedéet dañ daan amul njariñ te bari waane tey ay jigéen ñoo xamante ne bii duñu feetu mu ko feet bu jeex te xeexuñu wala xuloowuñu ci ay wujju te li ko indi yëpp mooy borom kër yi nga xamante ne bii amuñu caractère régler ay soxna ci biir kër amuñu caractère ku ci nekk ñu dij la ci àndam amuñu caractère kii doogu ñoo ñu xamal ne ko nag yaa ki fi nekk démb ak barki démb yéen a yem ay jigéen ngeen rek ñu takk indi ragal yàlla googu lañu war a am waaye ragal yàlla googu la jigéen ñëpp war a am ci ne lii feet la jàmm la xéewal la borom subhaana taala defal la nga fekkee nga tal heure bii daaw am na ñoo fa nekk ndooloon dem nañ heure bii ren it am na ñoo xamante ne bi tey taluñu ko sax pour feeti ko kon bu la yàlla mayee nga tal nga fekkee ba di ko def am na leneen loo ci war a lu dul ab defante kon macha allah Seyda ñu ngi ñaan borom subhaana taala yal na yàlla fay la yal yàlla defal la sutura àdduna ak am na solo lool te buñ ko dégloo xel bañ ko dégloo xol kon mbokk yi euh, thème baa ngi noonu xaw ma audio noonu ku ci am loo ciy dolli nga dolli ko ci ku ci am loo ci euh, kii tamit laaj tamit nga laaj ko ci am na solo daal macha allah na yàlla barkeel yal yàlla fay yal yàlla defal ñu ko ñun ñëpp ci suñu misaanu xasanaat yal nañu yàlla may dégg ak topp. képp koo xamante ne bi tamit yàlla dalaa yàlla nattoo wala dalaa wërsëgal wujju war a ñëw oyo faral rek melal na nga meloon démb ak barki démb bu ci jooy bu ci misère bu ci xalaat bu ci am naqaru xol sa xartum bi nga am yëlëbal nga sol bul jaayante ci dara dama ne à chaque fois jigéen ñi nañuy xëccoo mbaax saari'u ila magfiratun min rabbihum nañuy nañuy ñuy xëccoo jëm ci njéggali borom bi nañu daw jëm ci njéggalu borom gi am na loo xamante ne bi am jot la kii ñëw tey defante yow solal mbubb man defante wu ma bu ñëwee di wax waxu defante yow toddul kantu todd delloo ko kàddu defantewu ma bu ñëwee xool xoolub defante yow xool ko xoolub bëtu man defantewu ma ndax nag sam papa daf ma daan wax wax ju am solo nee na nit bu xëyee bëggub defante ne tey tey tey mu jàppanteeg yow mu ne ma jour boobu xañ ko ko xañ ko ko bul nangu mukk mu defanteeg yow mu ne boo ko xañee rey nga ko waaye nit bu jugee tey tey ne jàmm rek la bëgg a am bu gisee bu jàmm jooju buñ ko ko xañee rek rey nañ ko kon nit ki bu ñëwee pour indi defanteem yow ñu fekk si lànkal yow mi fekk see tamit ki yow mi fekk see bu dee ki lay fekk si da nga koo indil defante tamit kiy fekk see na lànk kiy fekk see lànk bu dee yow mi jiitu ci kër gi nekk aaw bi ci kër gi dangay xaar kee ci ab defante moom mi ñëw fas la yéene fekk si na lànk bu mu fekk si mu ko ci defante boobu mbokk yi ji nit dangay defante ci jikko yu baax nit dangay defante ci ci yar ci teggin ci ay xasanaat tey jullit taxawaay bi la war a am donte la sa wujju la naam mais jaamu yàlla la sa mbokku jigéen la sa mbokku jullit la defanteel ak moom ci njekk da yàlla mu ne idfa billati hiya ahsan delloo ko njekk defanteel ak moom njekk bu fekkee gis nga ni kii njekk yi nga koy woo wuy sule ci yow continuer njekk gi rek continuer yi njëkk gi moo tax dañ naan nit boobu bu lay sànni xeer nga di ko sànni pom bu ay xeeram jeexee ay pom pomam yooyu lay mujjee jël pom yi nga ko sànni woon lay mujjee jël di la ko delloo dafa am nit ñoo xamante ne bii nag période bii moom seen période la ci dinaa dëbb kër ga ba mu mokk tey laa koy wàccee ba mu def zéro tey lay xam ne du ma moroomam tey lay xam ne du maag moom tey lay xam ne dina jooy tey ba bëgg a dee dinaa ko teg naqar xol dinaa ko teg stress bu julli gi bu weesoo nag ku nekk daal di toog nag di commentaire di kaa janq luy kaa bi nga ne keroog diw ba ma ko fekk jee dëbb naa ko ba mokk lan nga dëbb foo toj foo rajaxee ragal yàlla nga war a def ci ki ngay fekk si ki ñuy fekk si moo war a ragal yàlla borom kër gi war a ragal yàlla yéen ñëpp ngeen ànd wommatu xam na lii euh, euh, wërsëgu borom bi la bu ñu bu ñu xéewale ñu war koo sant bu baax a baax a baax wa in tauddu bi wa in tauddu euh, wa in nu ko aayaat bi waxee sax maa ngi juum wa in tauddu nicmatallahi laa tusuha mi ngi noonu alhamdulilahi lazi bi ni'matihi tatimu saalihaat di dellu di sant borom bi ci xéewal yi nga xamante ne bi defal nañu ko kon tey lii moo war a nekk suñu taxawaay mais pas pour defanteeg dëbbanteeg tey ma rukk ko tey ma mel noo xamante ne bii ba ma génnee keroog daa tiit ba ma gisee daa sëgg génnul néegam néegam la loolu di jooy ànd naa ak sama waaye dugg barab sàngam keroog ayoo ma waaye maa récupéré ay gi keroog maa def nii maa def lool du ndam lool du ndam mukk mukk lool du ndam xéewal yi ñu borom bi subhaanahu wa xéewaleel ñu fekkee ko ñu war koo sant ak xéewal ci kanam moo tax borom bi su ne wa in tauddu nicmatallahi la tusuha mi ngi noonu li ñu yàlla dafa mu xéewal mënuñu koo lim mënuñu koo jeexal santal yàlla tey ci xéewal googu mu fekkee xéewalu wér xéewalu tala solu summeeku doy na sëkk waaye bu ci boole defante lan ngay defante ci lu ñaaw lan ngay defante ci lu bon lan ngay defante ci déstabiliser nit lan ngay defante ci sewal nit lan ngay defante ci toroxal nit lan ngay defante ci merloo nit ci jooyloo nit ab julli dafay moytu détails yi nga xamante ne bii daf lay wàccee daf lay suufeel dafay wàcce sa personnalité bal daf lay doyadil kon thème bi mi ngi nii lii nañ ko dégloo ak xel bu baax teewlu ko tas audio yi ñëpp mën ci jariñu bi isnillah Seyda ñu ngi lay jaajëfal bu baax ni ñaan borom subhanahu taala mu fay la yàlla yàlla sàmm dëgëral euh, làmmiñ bi rafetal xel mi yàlla yàlla yombal jazakumullah xayran